tenir le point de presse fi pour euh, une raison essentielle bi tax ñu woo presse bi ndax réeréwu leen birne ne réeréwu leen mbir ne le responsable départemental de l'année 2024 ñu naan ko Souleymane Dembélé ñu ngi ko téye à la prison de Tambacounda depuis bientôt cinq mois, dans une semaine, notamment le coordonnateur départemental, muy Abdou Baké. Pam, Sam bi responsable départemental ou ma pour passer à Pastef responsable dont une jeune dame Zara Wagen, de 25 ans a 13 autres détenus nous au total 16 détenus nous xam nous yi ñu ngi Bakel ak Tamba ont de manière scandaleuse Lorsque nous avons tey une dans la famille de Jules Dembélé pour tenir ce point de presse ici pour nous indigner nous indigner contre ces arrestations qui sont totalement illégales lu illégales parce que dañu deful lu ñu leen war a fait que day fekk les milliers de jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci suñu kaso yi démb Je ma visiter leen su xol dafa jeex ndax injustice dafa metti de xol te régime président Macky Sall bi injustice lay dundeek ñun suba ba ngoon loolu nag dafa war a dakk moo tax buñ naan continuité onze billahi mina sheytaani rajim yàlla bu fi continuité am ndax injustice bi ñu teg ñii ma seeti démb ci condition yi nga xam ne lañ leen emprisonné ku xam tàngaayo bi nit ñi nekkee ci kër yi boo taalee ventilateur doo gis ngelaw lu la ëpp nga jël ay ay ay ay citoyen honnête yoo xam ne dafa lu dul dara amul loo leen mën a toppee tëj leen ci kaso bi pendant plus de 4 mois, bientôt 5 mois, dans une semaine. Te ben acte, aucun acte, aucun acte judiciaire, amul acte judiciaire qui a été posé. Ah, parce que des passe du temps à expliquer juge de daf il a ba il ba il a téléphone ñu dabi leen il non non non non il non, na non, da non. il a il ban

Nous ne procureur ñoo na fa Nous loolu mokke ko tuddee ne leen non amu rek ci affaire pays de droit loolu mooy pays de droit ay citoyen père de famille mère de famille rentrée bi jot famille yi tumuranke ñu yor ay liggéeyu xamuñ ndax nous fekk am Cette famille yi di di ñu nekk ci tàngaayu kaso bi nga naan toog leen ñu xaar ba ñu xool seen affaire il est temps que suñu justice bi ñu changé ko moo tax il faut une rupture le candidat maquillé de Macky Sall kooku du fi jàlle mu Amadou Ba loolu du fi amee parce que lii mooy continuer ah lii mooy continuer une injustice ak jaay doole citoyen ça c'est inadmissible

on était une délégation Nous hein. nous ñu war ko nous avons ni ñu ñu ak Abdou ñom trouble à l'ordre public d'une manifestation qui n'a pas eu lieu participation il illégal illégale à une manifestation non autorisée n'y a pas eu de manifestation ki taxone ñu taxaw kon wax ban manifestation buñ doon teeru Ousmane Sonko ah, Ousmane Sonko yegg si wut waa ngeen ne kon manifestation am na mais c'est illégal Macky Sall na bàyyi jaay doole bi muy jaay nit ñi na ko arrêté fii yàlla rek am doole ah war na koo xam sax yàlla rek a fi am doole te du tax nga xoxatal kenn nag ñama seeti démb ils ont un moral d'acier te maa leen di féliciter loolu la ñuy wax nañu yéen ñi ne ci biti yéen ñu ëpp coono. waaye loolu as gor a koy wax parce que ña nga ca as gor doo doo nekk ci kaso bi boo deful dara c'est inadmissible suñu xol jeex waaye nag dañuy taxaw dañuy taxaw may woo tous les démocrates Tambacounda ba Dakar Médina Yoro Foulah ba ñu jógee ba ci Fuuta gi ma nekkoon ñoom ñëpp taxaw pour mettre fin à régime bi nga xam ne jaay doole lay jaay sénégalais yi suba ba ngoon muy man mii ñu dax assemblée nationale Ousmane Sonko mi nga xam ne juge bi ba ñu amee deux points d'accusation juge bi da koo dàq ñu téye ko juge Faye ne jox leen ko ay parrainage am mais jox leen ko ay parrainage mu dem élection te Sénégalais yi ñooy fal ah ku nu leen neex la nu war a fal ni nu fale woon président Macky Sall moom lii mu ñuy def nit ñi nii ñoo àndoon ak moom 2010 2011 am na ñu fi nekkoon ak moom fii. ba nga xamee ne dañu commissariat central lii may wax ñëpp fekk nañ ñu ne ko way eh ben, euh, def blanchiment mu joxe explication ñu dossier bi amul dara dañ ko bàyyi mu ñibbi bu muy def ak nit mandat de ko du dégg président il n'a pas le droit amul droit di def muy def ñu wax candidat bi man fi day les sénégalais veulent une rupture définitive li ñu bëgg mooy justice boo xam day Sénégal la même justice pour tout le monde fii ku fi génn moo tax ci biir kër la ñuy defee suñu manifestation yi moo ko defoon ci mbedd mi ngeen xam préfet yi yónni gendarmerie ñu dal di ñu nguufaan waaye ci biir domicile nag xanaa ku nekk sañ ngaa def la ngay def ko sa biir mais ñoom ña ngay ña ngay manifestation ci biti ña ngay def seen seeni manifestation kenn sonul leen tous les jours donc ku am ndey ak ku ma amul ndey ñu naan continuité loolu day jeex fii kenn du fi continuité président Macky Sall bu yeboo mu maquiller son candidat ba mu nuroog moom ca lay gën a gaawee sax ndax sénégalais yi dañoo tooy. voilà du fi am ay ay ay ay ay ay deru bay bukki bu sàngoog deru bay kooku du fi am non sénégalais yi lay waxal nanu seet bu baax ñu ngi dugg ci biir nit ñi ak parrainage. voilà très bien ku joxe sa carte d'identité dinañ la financer ku la financer wu loon 12 ans mu des 4 mois dana la financer. te jigéen ñi nag lañ koy def waaye dañu xamul pexey jigéen buñ xamoon pexey jigéen ah bu kenn joxe sa pare ñoom bu fekkoon ne dañoo topp yoon yoon dafa ne boo amee treize députés mën ngaa am candidat ñoom am nañ ba mu doy kon lu ñuy wutati ci parrainage citoyen bi pour jaxase xel yi pour nangu carte yi mais loolu mën ngaa am téeméeru pexe sénégalais yi xam nañu lu ñuy def bu baax a baax a seen xelu bopp la ñu nak ku nek xol ki ngay parrainé nga déglu bu baaxa baax programme a ah, ñun nag soxna lañu dañu bëgg soxna yi nak soxle ñu soxle ñu contre la continuité d'un troisième mandat du président Macky Sall parce que fal Amadou baral mom wax na ko ah ko bé wala man bu ma toogee day melni ya tok yeen ñaan ñep kenn du ci tok lolu nañu ci bayyi xel bu baaxa baax parce que fokk ñu jubbantiwaat suñu rew waxna justice mais suñu doom yi di jël gaar yi di dem jël gaar yi di dem est-ce que dégg ngeen ñu ne leen conseil ministre euh, présidentiel euh, contre l'immigration clandestine tey ñu ne la deux yegg na suba ñu ne la cinquante lab nañu suñu xol yi ñun di nacc parce que ñun juruñu ay doom pour que ñuy dem ci lab ci geej gi dañu bëgg ñu toog fii tedd fii mën ñoo yor ñuy wax président au moins dernier conseil présidentiel sur l'immigration clandestine jël fi une décision boobu ñu xam une décision metti na ko décision. leen ngeen déggul président reporté voilà ñi yegg na ñi yeggul ba noppi sax kooku suñu gàcce la suñu gàcce la mu mel suñu dëkk yi dafa am guerre ndax yi dañoo découragé kon ñu Inch'Allah, mois de février li yep day changer, li yep day changer dañu bok ci changement bi dañu muñ xex voilà waxtaan ak jigéen ni ndaw ni mag travailleurs syndicalistes yi personne du troisième âge artistes yi ku ne ne li dafa wara délégation pasteur bi fi jóge sam fi ñëw aussi en visite de courtoisie di leen wax ne ñu ngi ñu nit ñu di exprimer suñu solidarité wax naa vis-à-vis aussi de votre leader Ousmane Sonko wax depuis le début c'est une injustice criable et continue ñoom boo waxee ñu ne flagrant délit li ñuy def mooy injustice flagrante et continue da ngeen ko toppoon juge bi ñaari chef d'accusation ñu ne dàq nañ loolu nee ne non non non non nañ indi beneen paré duñ ci ñu dem ne parrainage juge fay bi né nañ ko jox parrainage fa ah, duñ ko ko jox ko ko jox parrainage nag bu amé parrainage day dem élection comme da nga doon baal def dialogue né dañuy bal ñëpp tout le monde mais baalal ñëpp ñëpp bok ni président Ablaye Wade amé won courage comme démocrate d'affronter tout le monde waaye démocratie doone yii kii mën na maa gañ dama koy teg ne voilà kii danaa xool bu yeboo nak opposition bi jox ci bopam parce que ci parrainage yi aussi xëy na bëgg na cee jaar seet ña muy éliminer du dox mënu ko def du dox parce que la muy yem bopp ba tey doxu ndegam troisième mandat bi jàll fi leneen du fi jàll mais il est temps que ñu serrer les rangs entre nous en tant qu'opposition véritable nag laa wax serrer les rangs bokk fi ñu jëm xam ne Sénégal dañ ko war a jubbanti ñu xeex pour qu'il y ait des élections inclusives suñu xeex la war a doon ñëpp bokk des élections transparentes

bañ delloo leen seen i téléphone mm-hmm. non non non foog ñu mettital la foog ñu jaay la doole foog ñu def la yëfu soxor non loolu loolu loolu loolu mës am Sénégal sama baat ca kaw nañu mm-hmm. ma wax kañ le Sénégal a am plus de deux mille détenus pour des faits politiques jamais bu fekkee ne am na nañu ma indil preuve yi ma gis ko mës kon président Macky Sall li ñu koy wax comme il est jamais trop tard pour rectifier mu libérer xale yi yëpp

taxaw nak fek yàlla ñuy may bakkan li ñuy wax dañ koy continuer di wax parce que mënu ñoo dund ba yegg fi ba nopi di gis yoonu dëgg di jaar fenen dañ ci wo képp ko xam ne dëgg soxal na la muy mag ni surtout troisième âge muy xalé yi muy jigen ni ñoom ma ngi leen di wo particulièrement pour que ñu mobiliser ndax suñu ay doom nak ñoy jël gaal yi di dem di dé ci ci ci géej gi ndax amatuñu yaakaar li nak boo ci nekkee aussi pour que nga perte yaakaar day yokk injustice waaye li ci des quatre mois la matatu ko sax nañu booloo muñ mobiliser wu mobiliser wu da am taxaw faire face Il faut faire face amul pour que vraiment ñu delloo Sénégal ci yoon wi ngay xam ne mooy Nous état de droit justice Nous xalaat aussi nous ñuy fexe ba dund gii wàññeeku la vie est devenue impossible au Sénégal impossible tey boo demee ñu ne la jumbo cent franc defe na kilo suukar mille deux cent mais euh, c'est pas possible soble waxu donc yooyu yëpp dafa laaj suñu réew bi am changement changement moom moo lañ fi waral voilà muy muy président Macky Sall troisième mandat bi ci suuf bu ñu yox yoxi woon xam bu ñu yox yoxi woon xam waaye la ca ñu continuer combat bi élection candidat quatrième waru ko jël quatrième loolu le défi quatrième bu candidat quatrième mbokk vraiment ak xol bu fees nous tenir ce point de presse nous ñu vraiment nos camarades aussi bien euh, de Mimi 2024 Suleiman, et Pasteur, à tous ces jeunes qui sont là-bas ils sont 38 on me précise 38 l'écrasante majorité est de Pasteur. On demande ex pasteur Pasteur quel quel mënu leen Pasteur, Pasteur, Pastef ba saa yu leen neexee nit ki nag moom mën ngaa bind say wala nekk eh, ay gëm yàlla loolu mooy li am solo en tout cas bu ngeen ma ko mayee ma remercier aussi tous mes responsables ñi jógee ci dëkk yi dans le département ñu ngi jógee ci une tournée dans le Fouladou wax ji fépp benn la mooy nit ñi dañu bëgg yëf yi changer voilà boo demee ci dëkk yu ndaw yi li lay dëkk waar mooy nit nit ñi xamee li xew ndaxte fu ne lay dem nit ñi dañu yor seen xel nit ñi aussi dañuy am seen i information dëkk yi ay gone nga fa ñu jàng di expliquer aussi seen waajur yi ba noppi nag dundu gu metti gi ñëpp di ko dundandoo kon am nañu yaakaar ne yàlla incha allah coono bii dinañu ko teggil waaye yàlla nag da lay fekk ci waar bi mu jàppale la ñu ànd dans la solidarité dafa am solo la solidarité lii dal voilà sunu camarade pasteur yi dal Souleymane mën naa dal keneen moo tax ñu war a ànd construire un état de droit injustice jóge fi indi fi une politique boo xam ne ku ne da ciy gis sa bopp xale yi mën a am espoir ne danañu am liggéey buñ ñu amee formation adéquate jigéen ñi ñu mën leen a jàppale ci seen i projet Sénégal dellu ca fa mu waroon a dellu ci réputation bi ñu ko xamee woon maa ngi leen di gërëm di leen sant. koy nous sommes. Euh, venu rendre visite hier à nos détenus à la prison de, de Ils sont même 38 détenus, dont notre coordonnateur départemental, Souleymane Dembélé, et le, responsable départemental aussi de PASSEF, qui était là, semble Zara Wagé, qui est aussi votre responsable des jeunes. Jeune dame de 25 ans, dynamique, qui a son entreprise, qui elle a été arrêtée il y a deux mois. Parce que c'est facile hein, de coller à tout le monde le motif de trouble à l'ordre public. Et c'est écœurant, c'est tout simplement écœurant. Que d'honnêtes citoyens, parce qu'ils ont une opinion politique, tout le monde a le, droit d'avoir une opinion politique. Il y en a qui sont avec le euh, président Macky Sall, il y en a qui sont contre. Mais parce que vous avez une opinion politique, vous devez vous retrouver en prison pendant presque cinq mois, la semaine prochaine ça fera cinq mois, sans qu'aucun acte judiciaire n'ait été pris à leur endroit. C'est un véritable scandale. Ils ont d'ailleurs été libérés dans un premier temps par le juge, qui leur avait même remis leur téléphone pour être rattrapé immédiatement parce que le procureur se serait opposé à leur libération. Alors qu'il n'y a rien dans le dossier, absolument rien. Nous exigeons leur libération immédiate. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à notre coordonnateur adjoint du F24, Ali Oussane. Nous étions dans une délégation du F24 quand nous rendions visite à Ousmane Sonko. Dès qu'il a mis les pieds par terre, mais il a été raflé, c'est une rafle. Ensuite, on l'a mis en liberté provisoire pendant deux, trois mois pour ensuite l'arrêter. Aujourd'hui, nous sommes dans une insécurité judiciaire permanente. Et c'est pour ça qu'il va falloir que nous soyons unis pour combattre cette injustice qui touche évidemment Ousmane Sonko au premier plan un procès où les chefs d'accusation ont été balayés par le juge, on va trouver une autre condamnation, demande à prendre son parrainage, le juge il dit qu'il faut aller prendre son parrainage, mais qu'il faut remettre son parrainage. Le président Macky Sall qui a organisé un dialogue de pardon, pardonner à, des candidats, pourquoi il ne pardonne pas à tout le monde Lui, s'il appliquait si on lui avait appliqué le même régiment là qu'il applique à ses opposants, il n'aurait pas été président de la République. Il avait été convoqué au commissariat, accusé de faits de blanchiment. Après enquête, on l'a laissé rentrer chez lui parce que les faits n'étaient pas fondés. Si on lui avait appliqué ces mêmes méthodes, il n'aurait pas été président de la République. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et ce n'est pas son candidat maquillé là qui va passer. Hein. Parce qu'Amadouba, c'est le maquillage de Macky Lui-même a dit, oui, moi d'ailleurs, je m'inscris dans la continuité, subhanallah. Mm-hmm. On veut de la rupture. On veut une rupture au Sénégal. On ne veut pas qu'on arrête comme ça des citoyens. On les garde dans la chaleur des prisons pendant cinq mois. Voilà que les jeunes de désespoir prennent la mer euh, et que nous, nos enfants, soient dans l'insécurité totale. Il faut une rupture. Et il n'est pas concevable une seule minute qu'on continue avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est avec le cœur gros de chagrin que nous avons tenu ce point de presse pour exiger la libération de tous les détenus, non seulement les 38 de Tambacounda, mais l'ensemble des détenus du Sénégal. Il y a des milliers de familles qui sont dans le désarroi complet. C'est la rentrée des classes. Voilà, les parents sont en prison. Euh, non mais c'est inadmissible. Qu'on me dise où et quand dans l'histoire du Sénégal on a eu autant de détenus. ne s'est jamais fait dans l'histoire du Sénégal. Donc nous vivons un véritable recul démocratique qui est inacceptable. C'est pour ça qu'il faut que les démocrates s'unissent tous ensemble pour mettre fin à tout ce qui ressemble à ce régime, tout ce qui y ressemble, et qu'on remette le Sénégal sur la voie d'une justice juste. La justice doit être juste et pour tout le monde. Les jeunes, les femmes doivent avoir un espoir, l'espoir de vivre dignement dans leur pays, d'être traitées de manière égale et égalitaire. Ce n'est absolument plus le cas. Donc pour les trois mois qui lui restent, pour les quatre mois, j'invite le président Macky Sall à se ressaisir, d'abord à libérer tous les détenus de ce, de ce pays-là. L'image du Sénégal est écornée partout. Libère les gens, tout le monde qu'on ait des élections libres, inclusives, transparentes. Et pour ça, d'ailleurs, l'opposition doit s'unir pour assurer que les élections seront libres et transparentes et inclusives avec la participation de tous, y compris Ousmane Sonko, à qui le juge reconnaît le droit d'aller prendre séparément. Voilà les quelques mots. C'est avec le cœur gros. Hein, parce que nous connaissons aussi, en tout cas, connaissons nous connaissons Suleiman, qui est un garçon, voilà, euh, tout à fait correct. Et tous ceux qui y sont, cette jeune dame, qui m'a, ça m'a fendu le cœur, une toute jeune, qui s'essaye dans l'entrepreneuriat, voilà, qui, qui, voilà, qui a confiance en elle-même, et que ce système-là veut casser. C'est inhumain. C'est un traitement inhumain, tout simplement. Des jeunes qui ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Et évidemment, les responsables politiques qui assument. Mais ce que je peux dire à ceux qui les ont arrêtés, c'est peine perdue. J'ai trouvé des gens qui ont un moral de fer. J'ai trouvé des gens qui n'ont pas reculé et n'ont pas changé d'un pas. Donc ça ne fait que rendre leur situation encore pire, eux, ceux qui les arrêtent. Parce que si c'est pour les faire reculer ou leur faire peur, c'est échoué. Ça échoué. Ça a complètement foiré. Au contraire, vous ne faites que renforcer le mécontentement contre votre régime. Et raison de plus pour que on en finisse pour de bon. Mhm. J'ai dit Amadouba doit arriver quatrième à l'élection présidentielle. Il a d'ailleurs suffisamment de problèmes dans son camp, qui s'est éparpillé en plusieurs morceaux. Et qu'ils arrêtent voilà, toutes ces petites combines où on va dans les quartiers, donner nouveau cartes d'identité, on va vous donner du, des financements. Vous n'avez financé personne pendant 12 ans. C'est dans 4 mois que vous allez financer les autres. Il ne faut pas prendre aussi les femmes pour moins intelligentes qu'elles ne sont. Hein. On a tout compris. Hein? Les femmes ont tout compris. Ça ne marchera pas. Il faut se préparer à partir. Et d'ailleurs, je dis au Premier ministre qui est le candidat là, dans ces 4 mois, j'espère qu'il va élucider l'histoire des 1000 milliards là et 1000 milliards là. C'est pas comme ça à perdre des profits. Hein. Ça, on va lui poser ça pendant toute la campagne. Effectivement. Donc, euh, je voudrais remercier tous les responsables qui sont venus de plusieurs communes du département et vraiment remercier la délégation de PASSIF qui est venue me rendre une visite de courtoisie et leur réaffirmer mon entière solidarité vis à -vis de l'injustice que vit votre leader Ousmane Sonko et vis-à-vis de tous les détenus. Pour l'essentiel, qui sont de pasteur. Il n'y a pas d'ex-pasteur. Ça veut dire pas ex-pasteur. Vous pouvez dissoudre hein, ce que vous voulez. Vous allez dissoudre les militants et, les, leurs C'est peine perdue. Vous avez tous nos encouragements et notre solidarité. Nous exprimons aussi vraiment notre solidarité aux familles, aux épouses de ces détenus, aux enfants, c'est beaucoup de, peine et de mal qu'on est en train de faire à des milliers de familles. Et on n'a pas le droit de le faire. Nous sommes une culture de bienveillance. Nous sommes une culture civilisée. Nous ne cherchons pas à faire le mal gratuitement à nos enfants, à des épouses. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit unis, déterminés pour en finir avec ce régime qui n'a fait que cultiver l'injustice, l'inégalité entre les citoyens, il faudra en finir une bonne fois pour toutes. Je vous remercie. vous m'avez posé la question. avez posé la question sur le ministre de la Justice. De l'Intérieur. Qui a été ministre de la Justice Mais pourquoi on change un ministre de l'Intérieur à quatre mois des élections J'ai dit c'est un mauvais signal. Déjà, la société civile voulait un ministre de l'Intérieur qui organise les élections, qui ne soit pas marqué politiquement. Bon, Antoine Diom, je l'ai connu, hein. il n'était pas politique, mais il est devenu politique après, mais au moins, il n'avait pas une carte formelle d'un parti, au moins. Mais Sidi pas, plus politicien que lui, ça n'existe pas. Je l'ai entendu dire, oui, mais il faut que les gens qui me critiquent savent que en 2012, c'est Ousmane Gom qui a utilisé et le PNS a perdu. Mais c'est la même chose qui va se passer avec lui. Voilà, tout simplement. C'est un débat, il, voit ce qui va se passer. Il est de la jusqu'au bout, il est de Benoît jusqu'au bout, il va organiser les élections et le candidat de Benoît et de la vont aussi perdre. Mais on va le surveiller, on va l'avoir à l'œil. On va mettre en place, et dit, toute l'opposition à le faire, une plateforme pour contrôler au détail, au jour le jour, pour qu'on aille vers des élections inclusives et transparentes. Je vous remercie.